ndax seede dafa doon lu diis waaye dafa am loo xam ni bëgg naa koo gën a leeral xamal ko nit ñi mooy sëñ Atou héritage lépp lépp lépp moo doon défendre le mouridisme héritage am lépp lépp lépp lépp mooy l'engagement si mouridisme héritage lépp lépp lépp lépp lépp mooy lu indi ndam yoon Sëñ Tuubaa loolu nag lañuy ñu ànd moom te ànd ak moom li naan mooy benn personnage boo xam ne compris et incompris compris parce que soo ànd ak moom si dëgg day yomb soo ànd ak moom si nafeq ak loo xam xëy na nga bëgg daw si loo xam daf ko neex dafay dafay neex nii rek doo ko comprendre loolu nag la ñu ànd moom du leneen dañuy sant yàlla parce que moo ñu imprimé moo ñu jox fitu ak courage wu liggéey Sëñ moo ñu jox tam dignité boo xam ni moom leen transmettre génération yëpp moo ñu jox tam euh, dimension sociale taxaw doomu aadama taxawu ñi nga xam ni war na leen taxaw kon na héritage boobu su li mu bàyyi rek mooy euh, nekk si dëgg nekk si dëgg loolu moo tax xëy na sax euh, yu bari duñ ko comprendre ci moom am na loo xam tam xam naa ko si moom mooy l'honnêteté sociale ndax yaakaar naa ne am na ay pétrole yoo xam ne su doon keneen dina daan si corruption état dina daan si corruption ay ay personnalité yoo xam ni yàlla jox na leen waaye kenn mësu ko gis loolu man je peux le témoigner ndax ànd naa moom fu bari foo xam ni euh, ñooñu li ñu doon wax daanaka def na dund bi loolu mën naa ko seede li si des nag mooy ñun ñëpp ay njabootam lañ ñëpp ay njabootam lañ ñu fi xale yi ndaw yi ba si jigéen ñi ba ñëpp ay njabootam lañ kon léegi li des mooy mission bi ñu achevé ko achevé ko ci li sëñ Mountakha wax naan ba mu laal suuf kon nag ki nga xamoon nañ ko jox mooy sëñ si Diop parce que li sëñ aatu yéen woon day day day monument kon ku ko teg sa boppa rek monument lañ teg sa bopp waaye nag dañ koy ñaanal suñu borom may ko si tawfeex ak ndimbal ba mu yëgal ko jàmm